ñu seet rekk naka la defe ndax dañu fekk àdduna bi sotti bi muy laata sotti nag lu nekk xew na te it booba nit amul nit lañu mujj bind ba ñu ko bindee ba noppi borom bi wone na ni am na ci moom fierté ndax bind na ku yéeme am na ci moom fierté ndax bind na ku yéeme est nit xam na ni yàlla am na ci moom fierté foofu la foofu la problème bi nekk waaw